asalaamaaleykum les ultras daal di génne def ko récemment avant Sénégal du football contre pays ba gis nañ Kalidou Koulibaly le capitaine de l' équipe nationale du Sénégal ce matin ba ñu koy joxe drapeau bi moom ak Kalidou Koulibaly dafa waxoon le ñaacoo Sadio Mané tu vas nous manquer ñu gis que après ba Sénégal jot drapo bi pour la première fois Sadio Mané ba mu defee opération ci jàmm. teel a dóor a réagir mooma Sadio Mané daal di remercier bu baax a baax le monde du football ak képp koo xamee seetaanul football te muy apprécier Sadio Mané moom Sadio Mané nee na moo ngi am mbégte gis na message de soutien n'est actuellement mon petit diamou moma Sadio Mané mais aussi mon ngi à équipe nationale du Sénégal du souhaiter bonne chance à coéquipier nee na coéquipier une équipe nationale du Sénégal c'est le moment d'écrire une histoire monte Sadio Mané le fait que vous envoyez un message fort à l'équipe nationale du Sénégal dina tax suba suñu gaynde yi gën wane encore seen bopp sur le terrain parce que le Sénégal un grand choc la am contre Pays-Bas ba beneen yoon ci beneen vidéo incha